asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 daleen ak jàmm ci seen émission SOS santé ñu am mbégte ak kontaante di ci ànd ak saa su nekk yéen di waxtaan ci lépp lu ñeel wàllu wérgu yaram tey nag ñu am mbégte di ci dalal ki nga xamante ni kon moom mooy euh, docteur Cheikh Diop nekk kon directeur bu centre Jacques Chirac euh, di ko jaajëfal bu baax ci euh, disponibilité bi docteur Diop ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen fay ñun centre Jacques Chirac lañ nekk di nekk Thiaroye di yëngatu lépp xam ne dafay jëm ci wàllu xeex di yëngu ci lépp loo xamante ne kon euh, jëm na ci wàllub euh, ñi amee jafe-jafe xel lu ci euh, kon topp kon dañ lay nuyu bu baax encore di la jaajëfal di wax rek tey docteur Diop nga. présenter ñu un centre bi nga xam ne moom mooy centre Jacques Chirac. centre bi ñu ngi ko dalal ci àllu ñu ko inauguré février tey jamono président Jacques Chirac ak président Abdou Diouf ñoo ko ñoo ko ubbi euh, loolu moo tax sax ñu de ko président Jacques Chirac ndaxte coopération française ñoo ko financé donc mu nekk centre moom dañ ko taxawal nag ci diggante partenariat entre coopération française ministère de l'intérieur ak le mouvement associatif particulièrement bi nekkoon Thiaroye Mhm. donc centre euh, bi mu ngi yëngatu ci wàllu xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci ñuy jël drogue. Mhm. Euh, suñ liggéey mu ngi jëm ci fexe ba nit ñi duñ ko jël. Mhm. fexe ba ñi nga xam ne ñu ngi koy jël ñu dimbali leen ñu génn ci suñ gàttal loolu la. ak lépp loo xam ne nag euh, bi andi na ko ci nit ñi xaw ko pour mën ko si jàppale ñu génn ci. donc ci gàttal sant bi yaa ngi wax léegi euh, lu am euh, solo moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, day jàppale ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo cinéba donc mhm. buñ ko mënee wax kon ci tubaab muy drogue. donc tey jii nii mun nga ñu wax un peu ndax centre boobule exclusivement loolu rek lay toppatoo wala. parce que mbiru drogue dañu wax ne moo ko tax a jóg mbiru cinéma. Mm-hmm. waaye lépp loo xam ne dafay gàllankoor nit ci wàllu xelam aussi dañ ci yëngatu. Mm-hmm. parce que ñëpp xam nañ ne ñi nga xam ne dañuy jëm ci ñaanal yi loolu mën na leen yóbbu ba di taxali am na jàppale bu lay jàppale. Euh, ànd ci ak yenn mbokku médecin yi yéen nga taxaw nga fajo mm-hmm. donc gën nañ ko si si wàllu xeex li nga xam ne mooy doomu jàngoro ci la. parce que dafa am jàngat bi ñu def mooy ñuy jëfandikoo yenn xeetu dool yi. anam yi ñu koy jëlee dana leen yóbbu ñoom ñu jël ñu mën a euh, euh, euh, wàllanti seen biir li nga xam ne mooy doomu jàngoro ci da ay yenn xeetu feebar yi nga xam ne mën na jiti hépatite ak yu mel noonu mm-hmm. wàllu si dinañ ci yëngatu mm-hmm. bokk na aussi ci li ñuy def kon boo ko waxee sànq parce que bala ñuy wax ki nga xam ne jël na drogue dañuy fexe ba nit ñi duñ ko jël d'abord mm-hmm. donc loolu tax activité sensibilisation ak information yi ñuy def ñu amal ko solo fii ci Dakar ak fépp ci réew mi di wax ak ndaw ñi di leen tàggat di leen pour que li nga xam ne mooy mbir jël si neebal bi dem ci biir loolu wàllu prévention la moo nekk liggéey bu am solo boo xam ne dañ koy def mm-hmm. Euh, tey jii nii mu nekkoon centre boo xamante ne yéen a ngi accueillir ay ay nit donc mu nekk nag foo xamante ne euh, je suppose que ni euh, genre kon hôpital lay nekk ba nga xam ne nit ñi dañu fay nekk le temps que ñuy tànnee ba mën a delluwaat ci seen i njaboot tey configuration wu hôpital bi exact centre bi exactement naka la demee. centre bi jëlul sax forme hôpital li nga xam ne moom lañ ciy def comme liggéey mooy li ñuy wax ku am yenn jafe-jafe yi daa nga ci dalal daa nga ci dalal déglu la jéem a waxtaan ak yow jéem a waxtaan ak say boo ko xam lan mooy exactement sa problème ak ci lan la jóge mm-hmm. te à part de là nag ñu def li nga xam ne moom la ñuy wax processus d' accompagnement psychosocial mm-hmm. parce que ñun suñu wàll dafa jëm ci wàll woowu ñun li tubaab di wax accompagnement psychosocial loolu la ñu euh, bu fekkee dafa jaar nag wàllu faju ñun am nañ ay ñoo xam ne dañu lëkkaloo ak moom di liggéey ay médecin yoo xam ne dañ leen di tuddee ay addictologue addictologue boo ko déggee mooy médecin bu nga xam ne psychiatre la à la mooy ñi nga xam ne dañ leen seen xel dafa jëm ci wàllu faj ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku seen xam-xam dafa jëm ci loolu mm-hmm. mais bu fekk solo lu dañ leen dafa beneen tàggat boo xam ne dafa jëm ci li ñuy wax traité ak li ñuy wax addiction maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci mbéyam mbirum jël drogue wala sàngara yu mel noonu mm-hmm. donc ñooñu am na ci ñu nekk Fann ci benn service bu psychiatre am na ci ñu nekk hôpital Thiaroye ba hôpital psychiatrique bu Thiaroye bi nekk eh, eh, eh, boori raffinerie yi mm-hmm. ñun ak médecin yooyu bokk nañ ay kuréel yu bari di liggéey ñi nga xam ne dañ di recevoir fii ci centre bi buñ seetloo ne kii kuñ war faj la ñun dañuy defal li ñuy wax référence maanaam dañuy jënd këyit tamponné ko wax li nga xam ne yow jàpp nañ ne moo la dal référé bi ci médecin boobu foofu lañ bu foofu nga koy defee aussi bu fekkee lañ lay hospitalisé foofu nga mhm. ba nga xam ne le traitement donc aussi suivre nu mu waree bu traitement yi jeexalee aussi ñu gunge leen ba nga mën a dellu si seen njaboot parce que nit ki problème am lu ci ëpp lu problème mooy wér gu yaram kese am na yeneen jafe-jafe mu am ci ànd mhm. donc xool naka ñu lay ci wàllu woowu wàllu woowu la ñuy wax accompagnement vers la réinsertion au niveau familial au niveau social doon lu am solo. Mhm. parce que nit ki ko fajee ba pare des na beneen gunge bu ñu ko war a gunge pour mën a dellu si biir njabootam dellu si biir adduna bi donc loolu dafa am solo. Mhm. mu doon lu nga xam ne noonu lañ koy defee. Mhm. mais fii li nga xam ne moo fi am. ci biir am na foo xam ne dañ fiy dalal nit boo ñëwee am na fu ñu lay accueillir am nañu benn atelier de boo xam ne ñi nga xam dañ nekkoon ci ay jafe-jafe soxla liggéey mën nañ leen yóbbu bu fekkee ne bëgg na def menuiserie mën nañ leen yóbbu ci atelier menuiserie ñu former dañ koy def mhm. am na aussi espace sportif boo xam ne dañ fi tàggat ay ndaw ñoo xam ne xëy na buñ fi nekk loon dañuy nekk mbedd yi taxawaloo bi nga noonu mhm. yàlla def na am na ndaw yu bëri yuñ tàggat yoo xam ne sax tey ci wàllu sport bi ci wàllu basket bi surtout mhm. am hmm. xam ne am na solo am na solo. Euh, ñu gis ne activité yooyu ngeen di def yëpp quand même est très important pour hmm. réinsertion maanaam dugalaat ki nga xam ne moom moo kon euh, ak i am jàngoro nga dugalaat ko hmm. ci société bi su su tanee ndax stigmatisation yeeg yooyu des fois dañuy gis ne dafa bari dool lool ci société bi mais loolu dinañ ci dinañ ci ñëwaat mais yéen activité yooyu yëpp ngeen di def noonu gis nañ ne dafay laaj moyen bien te mm. euh, jamono yee passé waa centre Jacques Chirac génnoon nañu wax ni euh, dañoo am ay mm-hmm. jafe-jafe ci wàllub euh, mat ci wàllub daal moyen daal mm-hmm. Mm-hmm. waaw jërëjëf yi moom xëy na ba léegi sax mën nañu wax ne jógu fii waaye nag xaw na tànn tuuti waaw parce que centre jàppale fii ci biir réew mi ak ci bitim réew fii ci biir réew mën nañu jàpp ne ñu mel ni parce que wax naa ko ci njëlbeen bi centre bi ñi nga xam ne ñoo koy jàppale aussi mooy état du Sénégal. Mhm. parce que quelque part ñoom ñoo ko sax ci mettre en place. donc ministère intérieur euh, di jaar ci kuréel gi ñuy tuddee comité interministériel de lutte contre xam ne moo ngànk xeex drogue fii ci Sénégal ñu bokk fa. Euh, quand même euh, jàpp na ci li nga xam ne mooy defaraat centre bi centre bi boo fi ñëwoon daaw boo fi ren nga gis ne soppeeku Mm-hmm. Euh, defaraat nañ ko vraiment ba mu baaxaat national vraiment defaraat nañ ko lool nag état senegal Sénégal moo ci jàpp. Mm-hmm. ak ministère de la santé aussi. ministère de la santé vraiment bëri na loo xam ne defar na ko fii am na ay bâtiment yu bees yoo xam ne taxawal nañ ko fii donc loolu wàllu jàppale la bu am solo. Mm-hmm. bu weesoo loolu nag am na benn partenaire bu tudd ANPS alliance nationale des communautés pour la santé ñëpp xam ko mooy xeex ci wàllu Euh, kooku it euh, suñu partenaire la ñun d'ailleurs dañoo bokk ci politique boobu waaye suñu partenaire la euh, at yi passé yëpp ñu mat fukki at a ngi nii ñu ngi liggéey ñun ci ay programme xam ne véritablement jàppale na centre bi mhm. ñu ngi liggéey yoo xam ne États-Unis lañ nekk ñu leen di wax 4K benn ONG internationale américaine boo xam ne dafay samp ay kuréel ci àdduna bi pour ñu mën a xeex wàllu drogue ñooñu aussi suñuy partenaire lañ ci gàttal daal mhm. jafe-jafe xëy na moom jiwutu mais nag ñu euh, ñu ngi. ne parce que yu na si léegi mhm. ñu gis ne docteur Diop euh, Sénégal euh, seetlu nañu ne en général nit ñi bu nu feebaree même bu dee feebar boo xam ne jëmul sax ci wàllum xel pour ñu dem hôpital dafay nekk lu jafe su ñu amee aussi li nga xam ne moom mooy feebaru xel lu ci bëri famille yi dañ koy nëpp nëppal maanaam dañ leen di téye ci biir kër yi donc des fois ñu beddi leen ak yooyu téye leen ci kër yi daal du ñu teel a dem ci bërëbu fajukaay yi donc mhm. cas yooyu en général euh, dinañu peut-être yéex a ñëw hôpital ba faj bi dina metti tey jii nii euh, genre cas yooyu yan façon ngeen ci rencontré ak yan jafe-jafe la leen di àndil ñàkk dem teel googu ci bërëbu fajukaay yi. mais ay jafe-jafe yi dul jeex parce que nit ki li nga xam ne moo ko dal bu fekkee da ko dal nga teel ko yóbbu ak bi lay gën a teel yam ak feebar bu mën ci doon rawatina ci wàllu xel nit ñi nga xam ne dañu am feebaru xel bu fekkee teel nañ leen a jël bu nañ bu fekkee ne nit ki li ko dal teel nañ ci jóg xëy na lu bari dana wàññeeku mhm. dana gën a woyof ci moom dana gën a woyof ci njabootam dana gën a woyof ci nga xam ne moom moom moom moo koy faj ñi nga xam ne mooy li am mooy que dañuy dañuy bàyyi ba nit ki sonn. Mhm. ba feebar bi gañe ko daanaka ñu doog ko andi loolu nag ay jafe-jafe la loolu ay jafe-jafe la parce que effectivement loolu day gën a ci nga xam ne moom la dal ki koy faj bi gën a ci moom. fay bi aussi day gën a métti yi foofu mhm. euh, koy waral ñëpp xam nañu ko Sénégal fii moom li ñuy nëpp nëpp feebar yooyu dafa bari parce que famille yu bari dañu jàpp ne loolu sax bàcce la dëgg la da ngay gis koo xam ne xelam dafa wàññeeku mu nekk ci kër yi ñu koy nëbbu duñ bugg jàng koo gis di ko nëbb nit ñi ak yu mel noonu mhm. donc yooyu mooy tax problème yu noonu di am donc nañ jàpp ne feebaru xel comme dal dañ la war a teel a yóbbu faju mu mhm. mais nag nëpp nëppal bi mooy mooy mooy andi problème bi surtout ñu liggéey domaine bi ñu liggéey da ngay souvent dafa am lu muy jëfandikoo dina am euh, sàngara wala muy jëfandikoo yenn xeet si nga euh, bëri ba xel daf ko duñ gaaw a nangu sax ne looloo ko tal mhm. surtout suñu mbokku jigéen seen doom la duñ na teel a nangu ne kii day jël drogue parce que day wax ne euh, rabo dañ ko liggéey ak yooyu yu mel noonu yooyu dañuy gën a dégg li ci ëpp nag fekk loolu yëpp du du lu du am li am mooy que dafa am mu jëfandikoo loo moo ko yóbbu ci situation mel na loolu nag ñu teel xam ne seen feebar dañu na leen noonu loolu dafay andi ay jafe-jafe Mhm. Euh, tey jii nii euh, boo doon boo ñu doon wax pourcentage ñi nga xamante ne dañoo am feebaru xel ndax ay sineebar ak yooyu euh, ay drogue ak yu demee noonu ay substance yu jëfandikoo wala ñi nga xam ne dañoo jigi saay rek ñu am ay problème mu xel te fekk na jëfandikoo ñu dara tey boo ñu doon defal ratio boobu lan lay doon. ah dana dana jafe parce que xam nga suñu réew aussi jafe-jafe ci am mooy wàllu feebaru xel ñu koy wax santé ci tubaab. dafa amul benn jàngat boo xam ne def nañ ko pour natt naka la toll ci réew. Mhm. amul benn nation tey bu la wax ne Sénégal yi ci am feebaru xel nangamu nit la ñu. Mhm. loolu amul. kenn mënu la wax exactement te ñi nga xam ne am nañu feebaru ko teg ñii leneen ko teg leneen la loolu amul amul jàngat. Mhm. parce que am na loo xam ne comme ni nga ko waxee léegi pour def benn ratio wala pour nga def benn pourcentage dafay fekk ne euh, jiital nga li ñuy wax étude. recherche nga def ko nga def benn enquête évaluer un peu pour am données yu mel noonu mais loolu amul. Mhm. gouvernement a su ko organisé au niveau ONG yi aussi monsieur ko organisé waaye daal li am ba am moom lenn la loolu moom li teg bët be mooy que feebar xel quand problème bi ci Sénégal parce que ñu bari dal na leen. fii mhm. dëkk bi boo doxee rek nga gis xam ne fii véritablement ñu bari dal na leen. am na ñoo xam ne sax dañuy avancé ay chiffres di wax ne euh, six pour cent ñu naan sept pour cent am na ñuy wax sax dix pour cent de la population sénégalaise dañu am maladie mentale. Mhm. loolu yëpp lu jar a lu jar a vérifié la. dëgg la mais li am ba am mooy kañ nit ñi feebaru xel moom mu ngi ci réew mi. ñi nga xam ne duñ tàqali ko woon yow boo doxee ci benn bi rek xam ne problème la munoo xëy soo ko woon te dajeewam lu mat fukki nit wala ñaar fukki nit. absolument ñoo xam ne mhm. dafa dem donc loolu. pose na benn problème bu rëy a rëy pour wane ni mbiru feebaru xel moom problème ñu nga xam ne drogue moo leen ko teg bari na ñu nga xam ne aussi la leen ko jox leneen la bari nañu parce que na mhm. feebaru xel li ko mën a andi ci dafa bari Uh, gis nañ ci jamonoy actualité docteur ñu gis ay ñoo xamante ne ay kilifa lañu ñu mhm. jékki-jékki def ay mbir yoo xamante ne yu yu yu yu doy waar mais mhm. après ñu ko jàngatee ba si biir ne dañoo amee feebaru xel te pourtant day day fekk mhm. da ay nit yoo xam ne boo leen gisee doo leen ko teg parce que peut-être ñu ngi xëy di liggéey di def normal li ñuy wax a def mais ñu def jékki-jékki def benn acte boo xamante ne mhm. après euh, peut-être euh, jàngat yi ñu ci def wala police yi ci enquête yi ci police yi def day wane ne dañoo am feebaru xel façon euh, situation yooyu naka nga ko mën a expliquer. dafa bari ñu mu dal te feeñul ci ñoom am na ñoo xam ne am nañ feebar xel mais feeñul boo ko gisee doo ko xam mais wéruñu bari mm-hmm. euh, na ñoo xam ne euh, effectivement euh, dañuy nekk ak nit ñi di dem ñëw yor seen liggéey am ay responsabilité nekk ay kilifa comme ni ñu ko waxee mais fekk am nañ feebare xel mm-hmm. li tubaab di wax une pathologie latente mu ci seen biir bés nag dana ñëw am loo xam ne moo koy yee bu ko yeewee nag dana manifesté wu ñu def li ñuy wax passage à l'acte effectivement def loo xam ne euh, dañu xam ne lii nit ku ànd ak sago du ko def loolu dafa bari bari na ñuy dox ci mbedd yi euh, boo leen gisee ñu mel ni ay nit ñu normal mm-hmm. mais effectivement dañu feebar ak feebaru xel boo xam ne ma ngi nelaw ci ñoom euh, ñooñu nag li nga xam ne moom moo yee feebar boobu bari na bari na ci ñoom ñoo xam ne dañu jël benn feebar mu feeñal feebar boobu am na ñoo xam ne dafa am benn circonstance bu ñu nekk boo xam ne effectivement moo feeñal feebar boobu donc loolu mooy waral yenn actes yi ñu koy gis gis koo xam ne dafa normal comme ni nga ko waxee nekk nit ku normal nekk kilifa di liggéey xëy xëy rek def loo xam ne effectivement dafay jaaxal ñëpp dafay bett ñëpp loolu dafay wane ne am na feebar bu nekkoon ci moom di nelaw mooy yeewoo bu ko loolu moo ko andil mu def loolu mu def. Mhm. ñu war a bàyyi xel rek ci lenn. Mm-hmm. nañu bàyyi xel ci loolu bàyyi xel ne nit ñi bëri xam ne am nañ feebar xel mais feeñ ci sax yaram euh, mën nañ dund ak ñoom lu yàgg te du gaaw a manifesté mais bu fekkee jël nañu un produit boo xam ne effectivement mën na euh, euh, réveiller loolu loolu da daal di feeñal et loolu amee musiba mën naa am bokkul ak ñi nga xam ne seen feebar feeñal ñu nit ñi ràññale waaye loo mën ci am rek liñ ci war a jàngat mooy lenn mooy que feebaru xel moom jombul kenn jombul mhm. kilifa jombul ñu baal ma ci baat bi ñu ñuy wax baaloo la mhm. jombul mag jombul xale jombul góor jombul jigéen amul benn situation boo xam ne nit dana ci toll bu mucc ci loolu mhm. euh, bëri na ñoo xam ne xëy na dañu yaakaar ne am nañ problème mu àdduna parce que am nañ alal ñu ngi dund seen dund ñu ko bëggee mais feebaru xel daf na leen mbiru am ak ku ñàkk donc loolu dafa am solo ñu xàmmee ko. Mhm. loolu effectivement mooy waral ñu bari di xaw ci société bi mu jaaxal nit ñi parce que ña koy def ay nit ñoo xam ne xëy nañ jàpp nañ ne kii situation bi mu nekk lu mel ni ko mën dal mais effectivement kon ñoo ko war a sànq feebar bi ku nekk la mën a dal li ci am solo aussi mooy ñoo xam ne nit mën na ko am pendant longtemps te du feeñ ci moom mais dara mën na ko yee bokk su yee perte li ko ak mu def benn ah. mhm. Mhm. mais mais tey jii ci ci genre cas yooyu noonu docteur parce que euh, tey même bu fekkente ne feebar bi dafa làqatu ci yow mais quand même euh, say waa kër wala say entourage bu ñu amee seetlu xanaa peut-être war na mën a am benn mandarga wala benn affaire boo xamante ne war na daal luy luy signe daal signe précurseur luy wone ne ah kii de. am na attitude boo xam ne bokkul ak lam daan doxalee. waaw loolu xam nga ku am seetlu dëgg mën nga ko xam. mais mm-hmm. ñu bari xëy na seetlu boobu la am teewlu boobu la am mais ku am teewlu dëgg dëgg dëgg euh, nit ki nga nekkal bu fekkee am na yaaru feebar yooyu du ñàkk bés mu wane loo xam ne wane na kii effectivement am na lu na ci moom mais loolu nag nit ñi dañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu mooy li ci am. mooy jafe-jafe parce que nit ki nga xam ne dafa am feebaru xel. Euh, di dundaale ak moom te feeñul xay na du am du ñàkk ay jamono ay moment yow mu am nu manifesté wu même bu fekkee c'est de façon passagère mais loolu il faut nga am teewlu loolu moo tax gis nga euh, li ñuy wax observation maanaam boo nekkee nit nga ko xool xool ay réaction bu fekkee ne am na lu bees loo xam ne observé nga ko ci mu jaaxal la di jéem a gëstu la moo ko waral loolu dafa am solo. Mhm. dem na ci jëlum drogue bi gis nga ñi jël drogue li ci gën bari effectivement dañuy jël drogue ci kër gi pendant lu war a at kenn du ko xam. Mhm. parce que bu ñu leen seetlu simplement sa doom yor sa jabar mu nekk ci kër gi di tuur yàmba wala muy jël leneen amoo ci moom benn seetlu. Euh, euh, léeg-léeg sax mu soppeeku mais du mhm. bu xaw a doy du attirer sa attention wala ne moo ko waral sa de tey neexul deret wala dafa mel ni dafa mel ne rek te doo ci am beneen jàngat bu sori. Mhm. loolu dafay andi ñu mel noonu. nit ki bu fekkee da nekk ak moom. gis comme niñ ñu ko waxee mu am benn changement bu feeñ ci moom ci wàllu doxalinam ci wàllu comportement ci wàllu caractère am euh, loolu war na attirer sa attention nga jéem ko approché jéem a xam lan la. Mhm. bu fekkee ne effectivement seen diggante may na ko bu doon sa doom wala sa borom kër. na noonu bu fekkee ne effectivement am na fu ma toll nga ne ko mais dañ dañoo dem gis. sangam jéem a xool yow ban problème mu nga ko woon. Mhm. a mais mais loolu docteur loolu tam c'est un problème parce que ñu ci bëri dañuy nekk dans le déni te ñun peut-être amuñu tamit culture boobu noonu sëgam fii da ngay feebar sax doo nangu ne tel feebar dal na la waxatuma nag feebaru xel donc tey ji nga ne nit ki demal si psychologue wala si psychiatre loolu dañuy jàpp ne sax yëfi tubaab la. waaw waaw waaye mais jumte bu rëy li nga wax moo am solo xam nga na ñi fii li nga wax léegi dañuy nekk dans le déni maanaam du gaaw a nangu dañu sax nangu mm-hmm. li leen dal ki mu dal sax bu ko nangu ay mbokkam bu ko ko nangu lay te loolu ay musiba lay andi rek parce que feebar moom nga bañ ko nga nangu ko bu fekkee ne nangu ko loolu mooy jàmm ji yàlla dem faj ji yàlla mën na def nga wér mais boo koy bañ cela veut dire que doo ko faji boo koy bañal sa mbokk doo ko dimbale mu faju te feebar yëpp a yem boo faju mu def liggéeyam maanaam mu progressé ci yow yóbbu la foo xam ne xëy na ñu gën donc euh, yu mel noonu ay problème la ci suñu jamono bi mooy ni ma ko waxee sànq bëri na ñoo xam ne tey fii seen xel taxaliko nañ seen sago nekk ci ay situation yi day waar mais lu mel noonu moo ko waral ba mbir mi teel am nangu mu ne kii xelam mu ngi dem ñu jéem a jël ko yóbbu mu faju dañ ko seetaan ba mbir mi gañe ko ëpp ko doole xëy na mënatuñ ko téye ñu génne ko ci kër gi mu nekk ci mbedd yi taxawaalu mu doon euh, lu tiis ci waa këram Euh, donc aussi problème ci société bi parce que aussi ni ñi nga xam ne seen xel dafa dem ñu nekk ci tali yi di taxawal ci mbedd yi différent mbedd yi problème la même pour société bi mhm. je pense que loolu effectivement comportement yi nga wax léegi moo koy andi maanaam di dénier am na yoo xam ne nag di tubaab dara ngir euh, wér gu yaram moom amul mbiru tubaab amul mbiru a ku ñuul mhm. pour feebar da ngay te la a faj faj yi mhm. donc ci anam bu mën ci donc loolu dafa am solo loolu dafa am solo ni nga ko waxee nag am na xëy na fii boo ne damay seeti psychologue wala damay seeti benn psychiatre ñu yaakaar ne ay comportement nit ñi dana xoolaat ne kii moom est-ce que sàmm <laughs> dem ci docteur bu fekkee ne jàpp nañ ne ñoo feebar feebar ba sonn waaye eh, jëm nii rek di xool sa yaram te loolu war la parce que feebar li nga koy faje li ci ëpp mooy prévention maanaam di xool sa yaram bala feebar bi di ñëw wala bu feebar bi teel a ñëw nga teel ko faj loolu mooy li ëpp solo wér gu yaram noonu lañ koy sàmmee waaye doo xaar ba feebar bi ne këtt na jomb tëral la bañ nga laaj wala sa xel dem complètement ñu jóg jaga jële te yóbbu ci docteur c'est trop mhm. loolu effectivement docteur bi day def la mu mën rek mais bu ci yàlla àndul trop effectivement nit na ko lool. mën na ko donc loolu effectivement ay comportement yoo xam ne comme problème la ci suñu ko waxee dañuy teel a dem di faju dañuy teel a di consulté day xëy na nag moyens yi. ñenn ñi ñàkk moyen mën na leen jàpp loolu lu ñu xam ne da nga xam ne hmm. xëy na ñàkk moyen mooy tax lu bari looloo ngi ci ba tax na dañuy dem tourner wu vers maam mën ak ma ne des fois ñàkk moyen boobu moom mooy tax ba dañuy tourner wu euh, sëriñ yi yooyu waaw waaw waaw waaw moom dëgg la hmm. parce que li ñu mën ci waxe euh, yaram Sénégal moom euh, lu xaw a diis la ci askan hmm. waaw fii ñu bari su ñu feebaree daanaka duñ sawar sax hôpital boo demee ñu ne lañ may laaj aw ma ko. day métti lañ may fayu tukki aw ma ko lañ may fayu consultation ma ko lañ hospitalisation ba aw ma ko lu may jëndee dara sax aw ko loolu moom. dañ dañ koy faral di dégg ay jafe-jafe la ci askan bi mm-hmm. eh, loolu moom lu wér la eh, loolu tax ñu ñu dañuy waxaat ñu nga xam ne ñooy suñu partenaire pour ñu xool tuuti naka la ñuy yombale faj bi ba nit ci jot parce que loolu aussi lu am solo la Euh, bu dul loolu amul dañuy dem ci ñi nga xam ne moom ñenn ñi dañuy wax maamal nañu euh, xëy na dina laaj loo xam ne moo gën a yomb xëy na boo demoon ci hôpital bi ñenn ñi sax ñoo gën a cher la waaye li ci ëpp mooy bi bu fekkee ne amuñ mooy dem ci hôpital bi dañuy dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wax maamal yi nekk ci biir gox yi. Mhm. Euh, te ñooñu ñi ci ëpp ñi ci ëpp seetlu nañ ne seen pàcc pàcc la moo xam ne boo ci liggéey te boo ci jëlee tànn. donc loolu lu ñu seetlu la donc euh, suñu ñi nga xam ne ñoo ŋànk ministère de la santé yaakaar naa ne bu ñu doon fexe ba faj mi gën a yomb ci askan bi dana gën a baax parce que dina tax ñu gën a am cawarte dem ci mais fàttali rek mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé tey ñu am mbégte di ci dalal docteur Cheikh Diop euh, nekk rek euh, njiital euh, centre Jacques Chirac bu Thiaroye di toppatoo kon li nga xamante ne moom mooy ñi amee jafe-jafe ci seen wàllu xel donc tey ñuy waxtaanee jafe-jafe yooyu nga xam ne mu ngi ci sunu askan te dañoo bokk ci ñun te dañoo nekk ñoo xam ne itamit waruñ leen daw dañ leen war a kon toppatoo ci loolu docteur ñu gis ne tey jii am na ci mbedd bi comme ni nga ko waxee sànq ñu bëri ñoo xamante ne da leen gis ñuy taxawaalu mu leer na leen ñii ni àndatuñoo seen sago. bëri na mmh. ci est-ce que tey centre Jacques Chirac dinañ far di def genre récupération yooyu parce que ñooñu day nekk ñoo xam ne parfois seeni famille bedd dinañ leen donc mmh. amatuñu fu nu jëm est-ce que centre bi dina def genre yooyu noonu. ñun ñu ngi ci benn kuréel. Mmh. ñu ngi ci benn kuréel pour la promotion de la santé donc euh, nekkul ci ñun rek ñu ci ak yeneen kuréel am na benn euh, kuréel bu tudd taxaw ñu euh, yore bi ñooñu ñooy def liggéey boobu centre Jacques Chirac en tant que tel du ko def mhm. mais ñu ci kuréel boo xam ne am nañ ku fa nekk benn association bu tudd taxaw ñu yore bi ñooñu ñooy def liggéey boobu nga xam ne mooy wër ci mbedd yi. Mhm. Euh, buñ gisee koo xam ne euh, mu ngi ci mbedd mi amul benn taxaw du mbokk kenn jàppale wu ko mu nekk ci ay jafe-jafe. Mhm. ñoom danañ koy mën di jël di ko yóbbu dañ ko yóbbu faju euh, taxaw ko ci yu bari bari sànq leen utal leen ay yére yu mel noonu véritablement liggéey la bu nga xam ne ñu koy def ci collectif boobu nga xam ne. effectivement euh, comme ni ma ko waxee sànq centre social moom ci euh, commencé nañ ko depuis ay jamono ñu koy def. Mhm. xëy na nag ñoom it mooy ñu am parce que loolu dafa laaj ay moyens mooy nga xam ne moom la ñu am dafa dafa dafa dafa néew ci loolu. Mhm. Euh, waaye liggéey boobu moom ñu koy def ci ci ci ci kuréel googu may ci profité di leen nuyu di leen sargal bu baax. Mhm, ñooñu ay nit am solo lañ ci jamono bi parce que dañuy fekk ñi nga xam ne seen xel dafa dàqali. ñoom ñu nekk ci mbedd yi ñu leen di récupéré di leen yóbbu ñu faj bi di leen jàppale ci anam yu bëree bëri. Mhm. ba tax na seen situation dana xaw a amélioré wu tuuti. Mhm. donc loolu moom ñu ngi ci bu baax ak euh, partenariat bi ñu am ak kuréel boobu mooy tudd léegi. Mhm. Euh, euh, bu ñu dellu see ci côté médical bi tey jii ki nga xamante ne par exemple euh, nekk na ci mbedd mi soit ñu récupérer ko andiko mu faju wala koo xam ne mhm. sax dafa jékki-jékki famem andi ko pour ñu faj ko mhm. yooyu en général temps de guérison bi naka lay naka lay maanaam diir gi lan lay nekk. diir amul amul nañ ko faj ay at. ñenn ñi sax dañuy mujj génn hôpital bi dem seen kër parce que tane nanu ñu leen di a ñëw. Mm. Euh, feebaru xel fajam euh, traitement long cours comme ni ñuy wax du du traitement boo xam ne ci ay fan yu gàtt lay doon. Mm-hmm. lu ci ëpp dana dem dana lum bon bon bon dana am at wala lu ko ëpp. Mm-hmm. comme ni ko waxee nag am na koo xam ne bu fa tolloo nit ki dañ koy téye dañ ci hôpital bi faj ko bu fekkee ne taxali loo asal woon dëgg-dëgg. ba andi problème sax ci dëkk ak moom du yomb ndax euh, comportement bu mu am euh, nit ki bu tollee foofu dañ koy hospitalisé mais bu fekkee ne xëy na dem na ba tane danañ ko mun a libéré mu dem këram ci dundu normalam euh, di jël ay rendez-vous di dem temps de guérison bi nag dafay varier mhm. d'un malade à am na ñoo xam ne xëy na bu ñu fajoo au bout d'un an ci génn ñenn feebar dana leen jëral traitement bu yàgg yàgg am na ñoo xam ne ñu ngi faju ça fait lu mat ñetti at juróomi at euh, faj boo xam ne nag duñ ko tëdd hôpital parce que temps boobu yëpp nit di ko tëdd hôpital buñ demee ba yenn jafe-jafe yi dañ ci moom dañ koy daal di libéré mu dem li ñuy wax traitement ambulatoire di jël koy defal ko jox garab yoo xam ne dina ko stabilisé mhm. euh, entre temps mën na liggéey toppatoo boppam toppatoo njabootam mhm. Euh, ci am solo rek mooy ñu suivre traitement bi. justement ci cas yooyu mu am koo xam ne moo koy euh, assister pour que mu mën a topp traitement yi comme comme ni mu ko ni mu waree. ci mhm. mhm. au sein même mhm. ko hospitalisé. moom euh, normalement war na am ku nekk moom d'ailleurs hôpital sax duñu jël malade boo xam nekkul ak kenn. boo ñëwee andi sa malade parce que ki nga xam ne dafa taxaliku ak sagoom Euh, dafa wóorul sax bàyyi ko mu nekk moom kenn d'abord. Mhm. Euh, traitement yi nga xam ne dañ ko koy jox aussi bu fekkee ne amul taxawu amul assistance xëy na du ko jël loolu tax tout le temps dañuy wax ne. Euh, bu ñu ko hospitalisé il faut mu am mbokkam koo xam ne dina am jotam ci nekk ak moom foofu wa amu ko am na ci hôpital yi ñi nga xam ne ay volontaire la ñu ay nit dañ di nekk foofu bu fekkee ne waxtaan gi ak ñoom bu jubóo ñu ne la nangam moo ma ko fayee mën naa xool sa malade ñooñu aussi dañ leen fay fekk. Euh, bu fekkee ne yow amoo kenn ku la mën a teewal foofu parce que loolu day am leneen gis malade bi ñu andi foofu amul kenn ci famille am pare pour nekk moom. Mhm. Euh, bu fay boobu nekk situation la noonu bu fekkee ne am na lu mu mën a fay volontaire yi hôpital bi volontaire yi mën nañu suivre sa malade. Mhm. mais malaat moom ala kulli yàlla fu mu mënti nekk dañ koy suivre. Mhm. mais même bu demee këram sax. xëy na buy doog a ñëw aussi dana laaj waa kër ko toppatoo. ñu jël garab jotee ñu rappelé ko ko mu ko. bu fekkee ne dem hôpital jot na ñu fàttali ko ko mu dem faj bi donc loolu effectivement ku nekk ak koo xam ne dafa am feebaru xel loolu war nga ci bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. Eh, am na sax soo ne bu fa tolloo ñoom seen bopp ñoom kenn du leen ko wax ñoo koy fajal seen bopp mais li am daal mooy mi nga xam ne am nañ feebaru xel moom faut que ñu leen bàyyi xel bu baax a baax di leen suivre leen assister. Mm-hmm. loolu moom lu am solo la. Euh, dañu gis ne société bi euh, docteur dafa am mutation yoo xam ne daf ko subiir tey ji gis nañ mhm. de plus en plus euh, société bi mu ngi occidentaliser bopp sa bopp mhm. bi appartement donc mu nekk dëkkuwaay mhm. yoo xam ne fu mu toll nii ku nekk yaa ngi toppatoo sa bopp faale woo leneen la nga xam ne moo xew sa sa sa wet donc tey ji tax na ba maanaam yi moom dañ koy faral di ko dégg tout le temps ci ci média yeeg feneen est-ce que mm-hmm. tey jii nii maanaam chaleur humaine bi nga xam ne peut-être société bi ci la daan jàppale nit ñi moo fi mm-hmm. amatul ba tax na tey cas yi euh, yi gën di mm-hmm. gën a bëri. non loolu moom lu leer la parce que euh, feebaru xel yàgg na am ci àdduna bi suñu réew yi yàgg na fi am. mais boo xoolee ni mu mel ak ñi passé xëy na melu ko woon ci ay jamono. Euh, parce que li tubaab di ay ressort Euh, au niveau communautaire amoon na ba nga xam ne ki bu nga communauté bi ñoo ko daan jël en mhm. mais léegi dem na ba nga xam ne nit ki am na xam ne bu la dalee yow bu la sa waa moo moti jël en charge keneen du la jël en charge donc parce que nit ñi xëy na comme ni ñu koy waxee société bi non seulement. Euh, xëy na dafa occidentalisé wu maanaam bëri na lu ñu jël ci tubaab di a bindee mhm. euh, mais euh, jafe-jafe jamono crise bi aussi toll na xam ne xëy na kenn ku nekk sa bopp nga tal comme ni ñu koy waxee. ba tax na nit ki yenn yu bari boo ko amee bu le sa waa kër jàppalewul yow mënoo jàppale sa bopp sa jafe-jafe rek ngay dundee parce que effectivement prise en charge communautaire dafa wàññeeku bu baax a baax donc loolu loolu loolu am na. Euh, bëri na ay jafe-jafe yu am fii tey yoo xam ne xëy na askan yi bu fekkoon ne ci biir gox yi jàppalante bi euh, solidarité bi nam daan amee ca jamono yi ñoom maam mu ngi ko ne ko am. Mhm. xëy na du fëse noonu waaye tey li ñu seetlu mooy ne que. effectivement nit ñi dañu dugg ci benn moo de bu nga xam ne kenn ku nekk daanaka sa bopp nga taal sa bopp ngay toppatoo ak say njaboot kese. Mhm. Euh, li dal keneen sa yoon nekku ci xëy na. Mhm. li mel noonu nag moo dem ba nga xam ne moo jur situation yi mel ni ku nekk ci yenn jafe-jafe yi. Euh, bu fekkee ne sa sañ mun la yi day gën a loolu moo waral ñi nga xam ne bëri nañ ñoo xam ne tey ñu ngi ci mbedd yi. mënoon nañ fa bañ a ne. Mm-hmm. bu fekkoon ne effectivement ña leen waroon taxaw ca gox ba ñu a rek taxawu nañ leen. Mm-hmm. Eh, loolu du am lu ci ëpp eh, comme ni ma ko waxee bu la sax fañ mën a gérer à l'interne da daal di génne ci donc loolu mooy doon problème parce que effectivement amatul solidarité boobu nga xam ne moom lañ doon xaar te moom lañ doon gis ci jamono yu passé yi. Mm-hmm. loolu amatul léegi. ak tamit parfois nga am nga am nga ñàkk dara wala ñàkk nit ku la jege. waaw waaw loolu waaw loolu yëpp dafay provoqué feebaru xel. Mhm. loolu dafay provoqué parce que feebaru xel du du jël drogue rek moo koy provoqué. bon mhm. nit am na nit ku nekk ak yàlla bindee ak si structure et que comme ni ko waxee li tubaab di wax soo ko national jékki-jékki am la dal laal ci li nga xam ne moo gën a sori ci yow yooyu yëpp mun na andi ay feebaru xel. Mhm. donc feebaru euh, xel moom bu ñu dugg xëy na ci analyse yi lan moo koy andi ci nit. Euh, danañ wax lu bari bari mais nañ xam ne rek ne lépp lu la mën ci dalit effectivement bu fekkee ne jël nañ ko en charge au niveau communautaire comme ni ko waxee sànq. mën na bañ a am yenn conséquences yu métti malheureusement loolu moo amatul. Mhm. Euh, euh, période Covid 19 bi euh, dañu gis ne jur na ay jafe-jafe ci secteur yu bari. tey jii nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi amee feebaru xel d'ailleurs sax mhm. Ansoumana Dione bu ASAM daf koy décrier tout le temps wax ni mhm. ñi amee feebaru xel dañ leen laisser en rade te pourtant ñoom itam ci askan wi lañ bokk te bu fekkente ne ñun par exemple ñu ngi takk masque te ki nga xam ne yàlla dafa def euh, nekkul ak xelam kooku du takk masque donc mu nekk ay mbir yoo xam ne euh, tey est-ce que état warul woon gën a taxaw ci ci mbir moomu walla exactement état Sénégal xëy na am na lu mu ciy def. Mhm. may profité bi ci ñi nga xam ne mooy waa division santé docteur Tine jiite ko. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee sànq ak communes yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey yëpp waaye nag bëri lu des. Mhm. bëri lu des comme ni ko Ansoumana waxee ma koy nuyu moom it sama xarit la yaa ngi leen di liggéey ci mel ni. dëgg la euh, comme ni mu ko waxee euh, feebaru xel xëy na ni nga ko waroon taxawu dëgg dëgg dëgg bëri na ay lu ci manqué. ba tax na période bii ñu toll nii. Euh, période Covid 19 bi loo xam ne dafa gën a tar ci ñoom parce que euh, ci biir askan wi gis nañ jafe-jafe yi ñu pour respecter li ñuy wax mesures barrières yi euh, asma ñi nga xam ne dañu am feebar xel parce que mhm. tey li ñu seetlu mooy que amul benn taxawaay boo xam ne état bi wala benn collectivité jëmee na ko ci ñoom. daanaka dafa mel ni sax dañ fàtte ci mbir boole mhm. euh, boolewuñ leen ci te ñooñu ay nit lañu comme ni ko Ansoumana waxee ay citoyen lañ am nañ droit nga xam ne citoyen am nañ ko luñ feebar feebar it war nañ leen mën a aar ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi jox leen ay matuwaay pour ñu mën a aar seen bopp mais loolu comme ni ñu ko waxee sànq aussi du loo xam ne seetlu nañ ko dafa mel ne dañ leen fàtte. loolu euh, nag doon loo xam dañ koy déplorer parce que dafay gën a rendre ñooñu vulnérable maanaam daf leen di gën a euh, exposé ci beneen feebar boo xam ne mën na leen lor mu covid dix-neuf mhm. voilà mu nekk euh, mbir mu mu am solo je pense que ñoom itamit partie intégrante lañ ci askan wi te dañ leen ci war aussi jël en compte loolu c'est important euh, tey jii euh, ci wàllu Covid bi aussi ñu gis ne financement yi bëri aussi dafa taxaw parce que xaalis amul koom-koom bi demeewul noonu tey est-ce que centre Jacques Chirac yëg na impact boobu noonu. waaw waaw comme ni ko ñëpp yëgee dañ ko procédé ak ñun mhm. euh, patients nga xam ne ñooy doon jàppale ñuy def liggéey bi xëy na Covid bi tax na lu bari mënatuñ ko aussi euh, lu bari nga xam ne dañ ko doon liggéey lu ci wàll séminaire yi doon organisé yenn activités yi doon organisé au niveau communautaire yëpp euh, bi Covid commencé dañ ko arrêté comme ni ko xamee liggéey bi si ëpp en ah, ligne lañ koy def mm. ay vidéoconférence la ñuy def buñ mën pour ñàkk def activité li ñu koy defal bu ñu néew lay doon euh, donc euh, loolu impact la ci wàllu liggéey bi euh, même médecin yi nga xam ne dañuy liggéey ñoom sax ñoom it effectivement léeg-léeg nga dañuy demee kooku liggéey siwul tey parce que dañu wàññi personnel bi pour wane ne effectivement Euh, Covid 19 moom ñu ngi impacté barabu liggéeyukaay yëpp ñu ngi impacté centre d'action rek waaye yaakaar nañ ne effort yi nga xam ne état yi dañ koy def communauté bi ko def dana tax euh, xëy na fii ak euh, ay fan yu néew ñu ci situation bi ñu ci li ñu meloon loolu la ñuy ñaan yàlla mhm. moom la ñuy ñaan yàlla en tout cas feebar bi moom euh, li mu gàllankoor dafa dafa bëri. gàllankoor mm, tey lu jëm ci wàllu matuwaay euh, maanaam mhm. prévention bëgg naa ñu ñëw si parce que tey par exemple benn junju rek dangay gis koo xam ne day toog ay fan du mën a nelaw naan am dama am ay insomnie ak yooyu est-ce que façon yooyu mënul dem ba andil ko jafe-jafe xel. comme li ñuy wax stress nit koo xam ne foo ko fekk ay xalaat jàpp nañ ko bu mënta nelaw. Mhm. parce que li ci ëpp insomnie stress dina bokk ci li ko andi. Mhm. mais loolu boo ci jógul mën a aj feebaru fan effectivement bari na feebaru yoo xam ne ci stress bu nekk rek la jógee nit ki am ay xalaat yu ëlëm boppam du nelaw guddi du nelaw bëccëg. et effectivement loolu dafay déstabiliser yi nga xam ne mooy système cérébral am loolu mën na ko andil mu am ay dépression dugg ci feebaru xel mhm. loolu liñ ciy jàng rek mooy que nit ñi war nañu def lépp pour wàññi stress pour wàññi stress stress moom li nga xam ne moo koy joxe ay xalaat yu métti rek xalaat yu métti yoo xam ne xëy na dina la jàpp yóbbu la ci benn état boo xam ne nelaw doo ko mën lekk doo ko mën ku ñu fekk nga nekk ci benn situation boo xam ne ba dis ñëw nga mel ni ku triste loolu dafa doon loo xam ne lu ñu war a moytu la euh, jafe-jafe àdduna moom fi lañ ko fekk si lañ koy ba lu ñëw rek nañ ko jàpp nañ ko war a jàppe lu nag mu bañ a andi yenn xalaat yu bari yi parce que effectivement loolu bu yàggee mën na déstabiliser nit ki bu dugal na ci mhm. loolu moom lu wér la ak tam sur surmenage beeg yooyu sur monage ah, hmm. liggéey boo xam ne doo noppalu. maanaam liggéey boo xam ne doo noppalu su nekkee guddeeg bëccëg yaa ngi ci doo ci jóg bu fekkee da ngay jàng doo doo jóg ci njàng mi yooyu yëpp dafa doon loo xam ne nit daal nañu war a xam ne nit dafa équilibré hmm. looy gis nit ki looy def dafa am waxtu dafa am fu mu yem liggéey am na waxtu jàng am na waxtu boo ëppalee waxtu nag nga xeet eh, ndax war a njàmbaar bu ëpp ngaañ te nga ci jël donc loolu je pense que war nañ ko bàyyi xel. parce que comme ni ko olof yi di waxee nit du machine nit effectivement sa yaram dafa laaj noppalu laaj na yëngatu mais laaj na noppalu bu lu jotee noppal ko ak loo mën ti jàpp bu sa yaram sonne noppal ko mais boo ko tegee loo xam ne attanu ko euh, ëllëg mën na la jural ay jafe-jafe ci wàllu xel mhm. yegg si nañu si njeexitalu émission bi euh, docteur Cheikh mm-hmm. Diop xanaa ñu may la rek euh, nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi ak loo loo leen di dénkaat rek pour daal ñu gën a taxaw ci seen wàllu. waaw waaw waaw di di di di di di leen remercier yéen waa Rewmi mm-hmm. ci émission bi mm-hmm. parce que man yàgg naa di intervenir ci seen émission. dëgg la. Euh, donc di leen remercier bu baax thème yi di aborder ay thèmes yu am solo la. Mhm. Euh, di ñaax askan yi ñu gën a taxaw ñi nga xam ne dañu taxaliku ak seen xel. parce mhm. que comme ni ko waxee sànq ci ñun la ñu bokk ay citoyen lañu euh, am nañ cër ci réew am nañ cër ci ñi nga xam ne fa la bokk nañ leen taxaw ay nit ñu feebar lañ xëy na seen xel moo feebar waaye feebar moom ak bu mu mënti doon. bu dalee nit ki nañ ko dimbale mu faju yàlla mën na def mu wér euh, bëri na ñoo xam ne fii ci réew mi tey euh, ñu fii euh, doon nit ñu am solo yor njaboot yor ay liggéey di taxawu réew mi ci anam yu am solo te lu mel noonu xëy na mësa leen dal mm. mais ba mu leen dalee am nañ taxaw am nañ jàppale boo xam ne def nañ ko ci ñoom ba tey loolu dafa mel ni mosu leen a dal donc loolu nañ ko xam képp ko am bokk lu mel noonu dal la na nga ko yóbbu mu faju bi mhm. na nga ko yóbbu mu faju bi fa ñuy fajee ñu seen xel dem xam nañ ko ñun si ànd ak boo ñëwee si ñun mën nañu ne yombalal lu mel noonu donc loolu véritablement lu ñuy dénkaane la mhm. jàpp ne feebaru xel du gàcce mhm. du feebar boo xam ne nit war na ko rus du feebar bu ñuy nëbb du feebar boo xam ne nit ki bu la talee dañ la war ci biir kër gi lu ñuy fexe ba kenn du la gis loolu moo andi problème biir société bi parce que bi nga xam ne am nañu feebaru xel loolu mooy gën a sonal nëbb bi ngeen di nëbb mooy tax ñu dem ba seen faj jafe finalement dañuy génn ci mbedd yi te ñuy terminer xëy na nañu bàyyi ku am feebaru xel waa kër bàyyi na ngay taxawal ci mbedd yi ñun ñu ne leen téye ci biir kër yi yóbbu leen ñu faj ci loolu moo am solo nit ki ak lu mu mënti doon place am dëkkuwaayam du mbedd. Mhm. nañu téye ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku ci biir kër yi ak nu mënti mel suñuy doom lañ suñuy jarbal lañ suñuy mbokk lañ dañ leen téye faj leen yor leen ñi nga war a loolu mën na tax effectivement seen feebar wàññeeku wala mu denc ñoom complètement mhm. mais bàyyi ko muy génn ci di taxawaalu kenn du ko yor lu nekk mën ko dal loolu du rafet rafetul ci fan yi koy def rafetul sax ci réew mi mhm. Sénégal loolu dafay ñaawal sax suñu réew mhm. boo génnee ci mbedd yi gis nit ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku ñuy tëgg ci trottoir yi loolu image bu rafet ci réew mi mhm. borom réew yi njiiti réew sax loolu rafet wuñ ko. dëgg la gis ay jamono dañ naan jël ay oto fii leen ramasser leen nëbbal yi mel noonu gan bu mag a mag sax buñ ko amee. Mhm. président bu ñu fàttali bi Obama sax mu gis lu mel loolu wane na ne effectivement réew bi ci boppam loolu du du du sàcc. Mhm. du sax ñoo xale yi di taxawal ci mbedd yi ñooyam taalibe yi ñuy wax ay enfant de loolu du sax ci biir réew ne dañ leen di sàkk ñuy taxawal ci mbedd yi ay mag ay xale ay ñi ñoo ci biir réew mi mm-hmm. nag am nañ ci responsabilité parce que xale boo gis nit koo gis xelam wàññeeku mu nekk ci mbedd mi ci kër la jógee dëgg la kër ga mu jógee nag ñooy premier responsable parce que ñoo ko waroon bàyyi mu génn donc man li may wax daal mooy nañ leen taxawu ay euh, doomu aadama lañ ko moom euh, am nañ ay jafe-jafe euh, ci ñun lañu bokk dañ leen taxaw dañ leen saga ñuy taxawal ci mbedd yi mhm. encore une fois maa ngi di remercier bu baax a baax. Mhm. di tàggu suñu auditeurs yi. Euh, di ñu mm-hmm. ñoo gën a am mbégte docteur Diop di la jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak solo si nga xam ne waxtaan bi lee am na ko dañ lay remercier bu baax a baax. di remercier également ñëpp ñu ngi doon déglu di leen wax kon du courage. parce que liggéey bi ngeen liggéey liggéey liggéeyal yàlla la donc ñu leen ci euh, encourager bu baax di leen remercier également ndax société bi ngeen koy defal. donc di jaajëfal bu baax mbokk yi ñu doon déglu di euh, Euh, teewee ci Rewmi FM 97.5 Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig daje vendredi prochain incha allah beneen thème beneen invité ci Rewmi FM 18h jàpp 19h ci seen émission SOS santé.